ba pare génneel leen ay forces de l'ordre ne leen force reste à la loi non force ne restera jamais à la loi force restera au peuple ñu yéex mu gaaw ñu yëg ñu bañ a yëg ñu gëm ñu bañ a gëm ñu nangu ñu bañ a nangu parce que bàyyi laay alayi xalifa ababacar yi fi tëdd sénégal du am dictature kenn du jàpp nit ñi téeleen li ñoo def nii même les forces de l'ordre là lii ni ni bu continuer ils sont en danger ñoom xam nga ban danger waxuma peuple buy dal seen kaw mais c'est-à-dire que nous one by one waa heure bu ko nexé ku mu ci mu éliminer c'est comme ça que naît la dictature donc rew du lo xamni ne day ne kenn du fi wax kenn du jóg kenn du dub kenn du génn le peuple sénégalais est le peuple le plus patient au monde et le plus passif au monde le plus tolérant et gentil au monde le plus accepteur au monde mais ñun Sénégal dañu am Nous, jafé ñun bu ñu xëyee ni dañuy dañuy julli ñaan suñu borom la ndékki la añ la reer la teg ataaya la waxtaan suñu biir mu rafet xamuñu defante lu bon mais pourquoi ñu war a bañante pourquoi ñu war a nekk ci gambi ñun ñu war a xëy 2022 ñun war nañu mën a gagné coupe d'afrique des nations ñu am joueurs yi nga xam ne ñoo gën a cher ci Afrique l' équipe nationale du Sénégal vaut plus de 200 milliards de francs CFA. équipe bi nekk Afrique yëpp Sénégal jiitu ci ñu gën leen cher ay joueurs ëpp leen ay salaire après lan mo xew ñu gagné coupe d'afrique ba paré nek ci psychose c'est à dire melni dëkk bu tumu ranké pour lan pour ay élection yu ndaw yu ñu wax législative on a fait les locales les gens ont gagné on ne supporte pas ça sa bop bi dang koy soral lan moy problème

fo ñasimɓe eadema mbayam dictateur won togo mu gat liñ doon bañ ci ablaywat ne doom la fi bëgg a teg togo sàggan loolu am for milan mel ni ko bëggut a dem ñu jël dëkk bu tudd côte d'ivoire laurent bagbo nekk fa doon défendre les intérêts de la côte d'ivoire france wàcc bu wàkkee jaxase ka la population ñu jëlee le fa parce que dañ ne da doon troisième mandat Sénégal nous am quatre présidences Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall mais ci quatrième présidence bi ñu gis né depuis 2012 ku bëgg eu élection do bok 2014 ku bëgg eu l'élection. bok moy ay 2014 Khalifa Ababacar est candidat à la municipalité ça pose problème foofu lañ ko njëkk méré 2018 ou 2019 2016 référendum référendum bon, président Macky Sall ne verrouillé n'aka, tête tëj na ma ka kenn peut fi def plus de deux mandats consécutifs nul ne peut léegi ñu le 2019 président bi ne su ma defee benn juróom laa waxoon finalement constitution bi ñoo ma forcé juróom-ñaar bu ma defee juróom-ñaar le ma paree juróom mu jeex damay dem il va falloir partir est-ce qu'il y a un nit pour défendre Macky Sall ci que taxaw fii parce que xaw ma ñi ay mais ay nitu ay nitu Macky Sall ngi taxaw suñu wet mais yàllaa ngi leen di gis ñooñu dañ leen di wax ne ñu réfléchir bàyyi xel est-ce que kenn si ñoom war naa mën a toog nangu ñu naan ko président Macky Sall waaw xam na droit à troisième mandat kenn ku ànd ak Macky Sall koo si wéetal kaa si toogal nga ne ko diw ak diw nga ne ko waa mais seen bi seen président bi yéen tamit suñu président li mu bëgg a def xam nga rek la lay tegal bu toogee ci télé bi nag yuuxu ca kaw

tant que journaliste man je pose juste une question si tu dois aller sortir dem julli ji juma. Ah. dañ koy téye ah. dañ koy téye waaw léegi bu fekkee dafa war a julli ji juma moi j'attends heure boobu laay xam. bu fekkee dafa war a julli ji juma ñu ne ko doo julli ji juma. Pape Pape Sénégal ñaar ay am. Ah, soit dañuy jàmmarloo ak. ngoone wala ñu génne waale sa phase benn yoon. bu am leneen. amul leneen soit on se bat wala ñu ne non ah euh, Sonko kon mënul julli kon bu beneen Sénégal na ko lenn damay dem màggal ñu ne ko doo màggal. waaw damay dem Tivaouane wala Ndiassane ñu ne ko doo dem. effectivement laa yi jóg ne dañuy dem julli ji fii sa sunu géej maam ñu ne ko tëj bi eh c'est barricadé ah le chef d'état passe. waaw loolu yéen foog xel. Ah, donc foog ñu waxante dëgg ci benn instant Sénégal dafa bokk maa wax la benn affaire dañu bokk ci dëkk yi gën a am alal si àdduna

mais Tay Sénégal sénégalais président Macky Sall du fi tok yalla dogal na mom mu falu ta yalla sédé na ni dañ ko ay jammam am rafet mais est-ce que xam ngeen on a le président le plus chanceux au monde président Macky Sall mu ñun mu neex ñu mu ñu coupe d'Afrique grand tombé waral ay non grand déglul rek non déglul non Macky Sall Macky Sall ci ayam lañuy bind ci histoire ne Sénégal après 62 ans jël na sa première coupe d'Afrique des nations. da nga wax Yalla ko dogal dañu kaa nangu ci ayam même boudé Cheikh Anta Diop waxoon nañu ne pétrole ak gaz ak lu nekk ngi fi mais ci ayam lañ ko yëgalee. malheureusement mom mo déggul Légui mom Yalla na ko yàlla roof bax ba mu dégg. on est vendredi bu fekkee ne président néw fi et apparemment newul Sénégal malheureusement. comme d'habitude mais yàlla nañu yàlla suturaal ba ñun ñu dund si jàmm te bisab àjjuma bisab àjjuma rek si jàmm. waaw Pape nan nga jàngatee nan nga jàngatee message bi nga xam ne moom la ministre de la république di Yankhoba Diattara wax léegi lu waa ñoom ñoo ko moom te force de l'ordre itam ñoo ko moom. ah loolu bàyyi nañu ci loxo suñu borom. Barthélémy Dias euh, kenn nekk fa kooku euh, nekk nañu fii. Euh, jox ma sama micro.

tey nañ la dugg foofu boo leen dee xool sax dañ naan yéen a ngi nekk loolu nag ñu ngi taxaw di veille